Ah, tey nag lu woote ndaje bi mooy li ko waral mooy ñun dañuy ànd nekk benn kuréel ndaw boo xamante ne dañuy yëng ci langue politique. mouvement bi nag mu ngi tudd mouvement des jeunes pour le développement économique et l'émergence de la Casamance mooy maanaam ay ndaw ñu booloo ngir sukkali Casamance ngir ci émergence ngir ndaw ñi mën a gis seen bopp ci politique réew mi. Ah, ñun nag dañ doon liggéey ak koo xamante ne mu ngi tudd monsieur Benoît Sambou. nekkoon ko nekk coordonnateur APR fii si Ziguinchor bu ñu doon ànd ak moom si ànd nawle lañ doon ànd ak moom ndax ñun lu ñu tax a dugg ci politique dañ ne dañoo bëgg a bokk ci langue politique bi ngir xool nan la ñuy participer si sukkali suñu gox. mais aussi téwal ndaw ñi ndax ndaw ñi ño xamantene tay politique publique yi fi gëna a bëri si réew yi ñi doxal ndaw yi lañ koy défaral ngir ñoom ñu am ci ñu leen fa téwal ñu am fa baat ngir ñu mëna bok ci si décision yi si doxalin parti ndax ñom ñoy magu ëlëk mais ci biir doxalin bobu dañu gis ni dafa am lo xamantene daf ñu ci metti ndax nit boy and ak mom mu am li ngeen wax am li ngeen jappante am li ngeen sëkk ngeen dem ba ci biir mu changer doxalin loolu daf la wara jaxal mu am jaxaway setlu Mais euh, depuis 2016 Nous ngi avec le ministre Benoît Sambu ci est colère, il la nawle lañ ak politique civile euh, département Ziguinchor mais lañ ni à chaque fois que xamante une décision il wala boo parti bi a li élection présidentielle De 2019 dañ rôle solo. ci élection bi mais dañ leen artu ci mbiru ndaw ñi ndax dañ leen ne ndaw yi da ngeen war a bàyyi xel si ñoom ndax ndawu Ziguinchor wala ndaw Sénégal dafa am lu leen métti ci doxalinu parti bi mais dégluwuñu bàyyi ñu xel ñu teg ñu ci côté ndax lan ndax ñun dañ ni ah gis-gis bu uute ak seen gis-gis mais ñu nag dañ ne doo ànd ak nit tey mu neex rek nga bàyyi ñu continuer di liggéey malgré joxuñ ñu ñaar dërëm. ñu liggéey ba yàlla def li mu def fii ci Ziguinchor ak ci senegal bu looloo jàllee ñu am ndaje ak ñoom wax ak ñoom wax ko lu ñu naqari wax ko lu ñu bëggee parti bi doxee ndax dañ ne booy ànd di liggéey dafa baax boo demee ba ci biir nga taxaw am taxaw seetlu xool li ngay liggéey amaana mu ngi dox walla doxul baax na wala baaxul ban jàngat la askan wi am ci doxalin boobu ndax boo demee ci élection fu nga doon gañee ñu dóor la war nga am taxaw seet xool lan moo dox ak lan moo dox ñun loolu lañ leen wax lu doxul nag ñun dañ ko gisoon tuur ci baaraam ba njëlbeen ndax ndew ñii dañ leen beddi bàyyi leen faalewuñu leen jëluñu leen en ci liggéey bi te loolu nag boo ko defee te yow nga taxaw nga ne yow askan bi moo la tax a jóg yooyu dañ jàpp ne ay problème buñ ci waxee ak moom nee nañu waa dégg naa leen mais malheureusement defu ci dara bu loolu jàllee ñu dem ci élection locale municipale loo xamante ne élection gox-goxaat yi ñu ànd ci ak moom ñu dem ba si cappaandaw ga bu ñu doon defar seen liste yi ñu woo ñëpp ñu beddi ñi ndax lan peut-être dañu am ay considération personnelle si ñun peut-être dañ ñoo buggul walla waxuñu lan moo tax ñu beddi ñu ñu interpellé leen ci question bi explication yu jox yenul mana xel munu ko nang ndax mënoo and ak ay nit lu ma ngay décider lo xamantene ci si parti bi la jëm ci yow la jëm booleew leen ci yeguñu ko dañu xey rek gis ay liste genn te ño xamantene amuñu benn base politique ci gien sor, man mako ko wax ay leader politique ño xamantene buñu duggé APR de 2012 ba tay musuñu gagner benn bureau de vote est-ce que ñoñu ay leader politique lañ nit bala nga dang nam da nga fay ne da ngay fess sa place boo nee leader politique nga nga koy woote da ngay fees sa place wodee ko sur le terrain ni ñuy gis gëm naa ne amul kenn si ñoom leader politique yi ku mën a def li ñu def nii fii tey je leur défie tous ñun suñu premier lancement mouvement bi centre culturel la woon c'était en 2019 ñu feesal ko def ay jéego yu bëri fekk wonee suñu bopp fii si Ziguinchor ci ay anam yu mucc ayib ci ay anam yu rafet mais malheureusement dañu gis ni ñoom bugguñu ñoo xamante ne dañoo xarañ bëgguñ ñoo xam ne dañu am niveau ñoom lu ñu bëgg mooy le culte de la médiocrité te ñun on n'est pas médiocre on va pas cautionner le culte de la médiocrité Lolo tax buñ ñu beddee ñu nit ñu ber suñu dara xol ku ñu gënal sélection locale ñu and ak mom bu loolu jallé nak ñu ne il faut ñu am taxaw seet mais nit bo leen bokké ci liggéey ngeen bokk ci gal gal bu suux capitaine bi du bal gal da ngay xaar be gal bi suux ba pare nga doog a génn loolu tax na waxuñu woon dépp booba dañu doon xaar ba élection législative yi jàll élection législative bu mu jàllee nag ñu toog waxtaan suñu biir xëyma doxalin bi ñu xool ñu nag ñoom bu fu ñu jógee ak tey lan moo dox ak lan moo doxul lan la ñuy wax mu deñ ak lan la ñuy wax ñu jëf ko lu ñu si seet mooy li ñuy wax mu deñ pratiquement moo fi ne te digguñ ñu dara loo xamante ne def nañ ko ñu ne nag nit booy ànd ak moom ànd leen ci dëgg ànd leen ci nawle bu ne nañu ñaanalante looloo tax tey ñu woote wax leen ni ñun génn nañu APR génn nañu Benno Bokk Yaakaar bokkatuñu ci parti boobu. te loolu nag kenn waralu ko ku dul Benoît Sambou ndax wane na laj na wane na mënul wane na attanul yor parti bi fii ci département bi la léegi nag président de la république moo war a jël responsabilité am bu dee bëgg na parti am mu continuer dund fii ci Casamance particulièrement département de Ziguinchor na ci indi matuwaay yu mat sëkk bu ko deful nag. na xam ne Isra la seul responsable parce que nit boo jëlee koo xamante ne mënul attanul nga teg ko mu jiite te mu lajj de 2012 ba tey yow ñu dënk la parti parti bi mu suul def fii loo xamante ne lu constant la lu taxaw kon war nga xoolaat sa bopp Wolof Njaay dafa ne ko ñëpp tufli boo da ngay tooy boo amee ay jafe-jafe ak ñëpp danga nga war a xoolaat sa bopp xoolaat sa doxalin njiit nag danga nga war a nangu lu ñu naan critique objective mooy maanaam bu ñu la nee nañu xoolaat nu ñuy doxalee. ngir luy jëmal parti bi ci kanam waroo rëy waroo orgueilleux da nga war a wàccee sa bopp nga xam ne dañu la jiital donc lu ñu la dënk la nga waxtaan ak nit ñi xool ni ngay jëmalee parti bi. looloo tax nag ñun dañu am fula bu mat sëkk am fit bu doyee nii gaynde taxaw naa leen bokkatuñu si yéen génn nañu dañuy ber suñu daara génn boobu nag génn ñu nag pour dem si beneen parti politique ndax souvent loolu lu classique la. politiciens yi bëri la ñuy def balaa ngay génn fii fekk nga am fu nga dugg génn foofu ñun defuñu politique ngir intérêt defuñu politique ngir am xaalis gisuñu politique pour am suñu ndombol tànk mais dañu def politique pour ngëm-ngëm vision ak loo xamante ne day indi changement ci biir réew mi bu loolu jàllee nag dañuy toog xool parti politique yu fi ne koo xamante ne méngoo nag suñu gis-gis bokk nag ñun suñu vision war nañu mëna and ak mom ñu waxtaan ci ay principe yu leer ndax duñu nangoo bi yoon di dugaat ci benen alliance wala ci benen parti politique pour ay nahaté wala dañu utiliser bañu am su luñu bëgg après ñu jël ñu sand ñu feulé ndax politique bi ñun ñoko wara def té ëlëk réew mi ñun ñoko wara yott té dama japp né dafa dañu wara dépasser ci idéologie bi naan ay xalé lañu ay jeune lañu mais sa dama né sama gaay bo amé 35 ans 40 ans 45 ans diriger wu réew kañ ngay diriger réew sama gaay ana da ngay xam nga amé 60 ans fu nga sonné bu nga nekkee ndaw nga toll sa digg doole ci nga war a mën a am kattan ak xam-xam ak xel bu ñaw ngir mën a yor sa réew donc ñun du ñu nangu dañuy tuutal di ñuy teg ay ndaw dañoo jàng mat sëkk am suñuy niveau te yàpp naa ne ñoom ñu nekk seen biir kenn ëpp ñu xam-xam kenn ëpp ñu niveau kenn ëpp ñu mbooloo ndax li nga gis nii kenn mënu ko def si ñoom looloo tax ñu jël suñu fit naan tey takkaliku nañu ak Benoît sambu takkale nañu ak APR takkale nañu ak Benno Bokk Yaakaar